wa baaduhum leen ci ñoom yàq daxu dana jam fii ci moom jaxran ci lu bir yufdi dana féetale li kutbihi ñeel téeréem ya alxaraa gannaaw ga mooy ca gannaaw li gannaaw wa zifra ak njaw ma ak zifra dañ koy firee am njaw wala xoj wala bokk nga ne ker nopp bu gën a yomb ci yow am na ñoo xam ne nee na bañ gi ñu bañ tasawuf tax na dañ koy jam bu méttee métti di yàq deru tasawuf buñ gisee sax téere yu bokk ci tasawuf dañ koy sànni ca gannaaw li gannaaw xam nga loo xam daa bëgg wax ne rek nit lu mu fonk da koy teg fi kanamam jàkkaarloog moom lu mu fonkul nag da koy bàyyi ca gannaaw li gannaaw mu ne nag ku mel ne kii téere tasawuf yi da koy sànni ca gannaawam li gannaaw wane ne faalewu ko amu ca soxla in jaxiloo ndeem réere nañu tarsiidahoo jubalam ga lil xalq ñeel mbindeef yi wa faddalahoo ak ngëneelam la allazi li nga xam ne badaa feeñ na bil xaq ci dëgg falaa yuwaari du mën a suturaal asam sa jant bi kaw nu dil xamaa nekku boroomu ngumba laysa bi mbubbu sirin du aji gis bi xaa ci jant bi fawqa samaa ci kaw asamaan nee na bu waa jamono ji umpalee daraja yi tasawuf ak ni mën a jubale doomi aadama yi jëm ci seen boroom ak li mu ëmb ci ngëneel bu ñu ko umpalee itam day ñoo koy yëg ndax jant bi bu ne dàng ci digg asamaan bu gumba taxawee fee di wax naa jant bi génnul tey ku xam daal di xam ne gumba ga moo gisul jant bi waaye jant bi génn na ña amub gis ñoom gis nañ ko moom nag moo amutub gis moo tax gisu ko ba tey ñi sikkal tasawuf sikk sa ci ñoom la nekk waaye ku xam daldi xam tasawuf xam ngëneelam wala tuxatti du muur ad dahra ci jenn jamono dulmatur ramadi lëndëmug wànnen fi ayni ansha ci bëtub aji bémpañ daw a layli badri yadin leeruk guddik weeru fukk ak ñeent ba tey nee na weer yi bu tolloo ci guddik fukk ak ñeent leer lool lool bu benn waay bu boole bémpañ ak wànnen taxawee fee di wax naa tey de xanaa waay weer wi daa génnut mbaa mun a ah lu ko tee leer waay su boobaa dañu xam ne bémpañ ka ak wànneen ka nekk ca moom moo ko tee gis weer wi waaye weer wi moom na mu daan mel ci guddi fukk ak ñeent rek noonu la mel ba tey na mu war a leere rek la leere tasawuf ba tey noonu la mel ñi koy sikkal rek ñoo sikk sikk sa ci ñoom la nekk waaye nekkul ci moom wasaatul miidaani yaatug lef ma lef mooy bulwaar laa yox fiihaa du ko mën a nëbb ibaa u namlatin bañu aw xorondoom sulookan suubu maanaam jaar fii xaaca yaatu bulwaar boobee yoon wu yaatoo yaatu leer naññ naññ naññ mbooloom oto man caa jaar bu aw xorondoom taxawee fee naa yoon wi yaatuwut yoon wi leerut man duma ci aw feelaay aw su boobaa ñu xam ne xorondoom wa moo dof rekk tasawuf ba tey noonu la mel ña koy sikkal ñoo sikkate dof rekk kallaa uy mbaa kallaa déedéet wala yu dannisu du tilimal al mutahara kañu laabal xawlu dawit dana si waxi waroom tir ba ne maa tatahara laabut ba tey nee na ku set wecc moom bu ko taq taxawee fee di ko sikkal naa diw dafa taq daa salte it ñu xam ne moom moomee moo taq moo salte waaye ka set wecc moom set na wecc rek tasawu fi noonu la daa set wecc taqul dara dara dara ñuy wax ne tasawuf daa taq ñoom ñoo taq walay sa yux fidu du mën a suufeel xuluwal adkiyaa yi kawek way ñaw ña xasadu dil xilmi kañaanuk boroom xam-xam wa jahlul arabiyaay ak réerub way réer ña ba tey nee na ñu yàlla may ñu amu xam jëfe ba yàlla yëkkati leen ñu nekk ca kaw li kaw ku leen añaane mbaa nga umpale leen ba tax nga naa ñoom daal duñu dara tekkiwuñu dara loola du tee rek ñoom ña nga ca kaw li kaw yàlla yëkkati na leen ba noppi te waxi kese mënu leen a suufeel ba tey xam-xamu tasawuf it nee na noonu la mel xam-xam la bu yàlla yëkkati ca kaw li kaw ku ko ëmpale nag mbaa nga añaan ba tax nga bëgg koo suufeel it du tee rek moom mu nekk ca kaw li kaw kookee koy jéem a sikkal ak ayibal nag moom rek mooy jëm ca suuf yaa ajaban maa ngi yéem kiimtaan kay fa yu damm naka la dee fi ŋàññe xilmun xam-xam maarifatun bopp xam bi ci moom xun mun ak màng la li xab din ñeel ab jaam lii day nee na lu ma yéem la xam-xam boo xam ne boo ko xamee te topp ko daldi am ngërëmal yàlla am texe àdduna àllaaxira lu ñuy ŋàññi xam-xam bu mel noonu daal lu ma yéem a yéem la aw kay fa yax taqiru wala naka lay xeebe dul xaqli boroomam xel xoloo man ay xam-xam mabda uxaayu seen tàmbalikaayu zuhdun moo di dëddu waxi bu xaata seenu muj naimun mooy xéewal mu ne it ba tey lii yéem na ma ku ñu ne am na dara ci xel ba noppi nag muy xeeb xam-xam boo xam ne la mu lay njëkk a wan moo di wan lépp lu bokkute yàlla gannaaw dëgmal yàllay kese te la ciy mujj nag ca loola mooy am ngërëmul yàlla ak xéewalu àdduna ak alaaxira yu amul ab xam-xam bu demee noonu daal lu ñuy waxe ne kii am na dara ci xel ba noppi di ko xeeb lu yéemu la aw kay fa tunkaru wala naka la dee fi weddee xulumun ay xam-xam sabatat yooyu sax nañu waxadd tadam manat te ñu làmboo sha'na ahlil xayri mbirum ñooñ yiw tadam manat làmboo nañu xisaalal ambiyaa yi jikko yi yonante ya wa saalihin xalqi ak way baax yi mbindeef yi wal awliyaay ak waliya ba tey nee na xam-xam boo xam ne daal day wax rekk jaar-jaar yi yonante yi ak wali yi ak gaa yu baax yi di la nettali fañ jaar nag seen boroom ba yàlla gërëm leen ndax nga mën caa roy ba tey ne xam-xam mel ni daal naka lañ koy weddee naa amul njariñ ak naa bokkul ci xam-xamu diine ba tey lu yéeme la wa kullu man képp koo xam ne yaduumu dana sax daa inkaarin di boroom gu weddi bi ci moom mada dëxri diirub jamono bi las di jaarin ci lu dul jàjju maanaam bañ a deltu gannaaw fa innahu naka kookee yamootu dana faatu bil israari ànd ak nuur xalal kabaayiri ci bàkkaar yu màgg ya bi àddulil baari ci maanduk yàlla mi aji bind bila musaaxabati irfaanin ci lu dul àndaaleeku xam bi xaa ci bàkkaar yu màgg yooyee nas sa yaxal na bi daaga ci loolu cheikhuna sunu sëriñ fanta bi na nga yeewu fataalihan na na nga dellu yëri junnatal muriidi junnatal muriid li xaw si naa ñeel sunu xeetal alxalifati kay xalifa ar rachidi kay aji jub alayhi yàlla na doole nekk ci moom ridwaanul ilaahi ngërëmal buur bi albaari ki aji bind wa kulli muslixin ak képp kuy aji defar minal axyaari ci tànneef yi képp koo xam ne nag nee na dafa sëgg rek ci di weddi tasawuf naa du dara amul njariñ yàlla dana ko nattoo bu dee faatu ay bàkkaar yu màgg lay faatuwaale te du ko yëg sax su yëgoon ne mi ngi ci ay bàkkaar yu màgg tuub ko sax mu tane waaye yàlla da koy nattoo deexaale ay bàkkaar yu màgg te du ko yëg loolu nag nee na mën nga koo seeti ci junnatul murid sunu sëriñ bu baax boobee ko taalif andi na ko ca mu ñaan yàlla dolli ko ngërëm dolli ngërëm it képp ku baax tey defar jaami yàlla yi bëgg ñu baax te mashtiqaaqu kilmati tasawufi topp xarub baatub tasawuf muxtalafun lu ñu wuute la fii ci moom bi aqwaalin ci ay wax te fii yow danañu dikk faqiila waxees na ne suffatun mi ngi bàyyi ko ci suffatun bii firi ab ruq ab ruq waqiila waxees na ne safun mi ngi bàyyi ko ci safun bii firi sàppe waqiila waxees na ne suufun mi ngi bàyyi ko ci suufun bii firi ngënal xiila waxees na ne safuun mi ngi bàyyi ko ci safuun bii firi ak sell faqfu na nga xeñtu mooy na nga topp waxiila waxees na xayru sii lu bokkut ak lii wa kullun te képp min humoo ci ñoom burhaanuhu layam wa mustahsanun lu ñu rafetlu la inda humoo fa ñoom aqwaaluhum seeni wax fii ci xarub baat boobu te siidu dana ëpp xalaa alfin ci junni taadaaduna surug lim laxaa ñeel wax yooyee xunaa fii laysa yu fii du du jariñ ne nag baat tasoofu moom fan la cosaanoo dañ caa wóote lool wax yañ ci wax ëpp na junniy wax te kenn ku ci ne waxam da koy jéem a dëgëral aku lay woo xam ne day jàpp ne rek moo nekk ci dëgg mu ne nag jekki di wax wax yu bari yooyee moom matu ko day guddal rek téere bi te du am njariñ téewul nag mu wax la benn benn wax ya am nañu ne mi ngi bàyyikoo ci suffatun bii firi ab ruq maanaam ci jamono yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa am ñoo xam ne ñoo féete woon ab ruq ci jàkka ja du ñu dugg ci daray àdduna bu jihaat amee ñu dem jihaat yi bu ñu nekkul di jihaat sax foofa rek ca jàkka ja di jaamu yàlla bi ahlu suffa nee nañu baatu ak suffatu boobu ci la ak tasawufu bàyyikoo ndax waa tasawuf dañu nuru saxaaba yu baax yooyee am ñu ne déedéet safun baat bi fi di sàppee safun mooy cosaan ndax foo fekk gaa yi tasawuf yi dañuy taqoo sàppes julli ak sàppes jihaad ci yoonu yàlla am ñu ne déedéet suufun bii firi ngënal ci la bàyyikoo ndax ñoom dañu daa sol yére der ndax ñagasal seenu dund ak bañ a topp seen bakkan tax ñu sol yére der am ñu ne déedéet safuun bi firi ak sellkat ci la baatu tasawuf bàyyikoo ndax ñoom seen mbir lépp ak sell la biir biti boo xoolee nag safuun ak tasawuf dañu xaw a nuroo nii waaye sore nañu ndax ak tasawufu waaw ga dafa jiitu faaga boo ñëwee ci safuun nag moom faaga dafa jiitu waaw ga moo tax bokkuñu wala xaasilu la am dëgg-dëgg daal mooy as-suufiyu suufiyu aalimun moo di aji xam xamila ko jëfe na bi ilmihi ci xam-xamam ba xaqiiqatan ci dëgg-dëgg wala mu yemil te jëngut fasaara te mu mujj saafiyan di aji sell minal ak daari ci ay nëx-nëx moom tali alqal bi tey aji fees xol minal afkaari ci ay xalaat mun qatian tey aji dogu li rabbihi jëm ci boroomam minal bashari bàyyi mbindeef yi musawiyan mbir mu muy aji yamale diinaara aynin diinaaru kee bil madari ak doññ suuf kee mooy wurus ak xaalis waaye fii nag dagam baat diinaar jiit na ko kon diinaar wurus rek la bëgg a wax ne boo bëggee xamle kan mooy suufi yu maanaam kan moo topp tasawuf ba nekk nitu yàlla da ngay wax ne mooy koo xam ne xam na xam gu mat sëkk jëfe itam la mu xam jëfe gu mat sëkk te yàlla tax yooyu yaar nag moom dara mënu koo génn xam ba ci yemukaay ba jëfe ànd ak sellal la nga xam ba ci yemukaay ba te yàlla rek tax loolu ëmb na lépp lépp lépp nitub tasawuf nag noonu lay mel du wàcc mukk mukk mukk li nga xam ne moom la xaqiqa ak shariha laaj foo ko fekk yooyu yaar rek lay boole biir biti ku mel noonu day mujj set wecc wecc wecc dara lu koy tee maneeg boroomam du nekkati ci moom te lépp lu koy taxa maneeg boroomam day nekk ci moom fu mu toll xolam day fees dell ci bëgg yàlla ak xalaat ko ba du xajoo leneen foo ko fekk day dëgmal boroomam tàggoog lépp lu bokkut ak boroomam du geesu menn mbindeef muy nit muy leneen yàlla rek moo koy ñor yàlla rek lay dëgmal la nit ñi gën a fonk ci alali àdduna te mooy wurus moom du ko xàmmeeg doju suuf du ko xàmmeeg aw donju suuf xanaa day bu leen xàmmee rek daa seetlu ne wurus wu mën na caa liggéeyal yàlla loo xam ne xëy na mënu ko ci ba yoroon donju suuf bu luwoo nag la ko wurus wa di gën a mën a may ngërëmul yàlla du ko xàmmeeg donju suuf ak ab këriñ ak ab bant ak yeneen ak yeneen kal ardi day mel ne suuf si yurma def na sànni fawqaxaa ci kawam kullu xabihin jépp aji bon wala turi te du wone min batniha ci biiram illa malihan ndare aji xoromu nitug yàlla day mel ne suuf si yi nga xam ne lu waay jël rek xëpp ko des na gas sax suuf sotti ca ay xayta waaye day mel ne sax fañ daan gas di fa sotti sobe bu yàgg-yàgg boo ko gasaatee mooy gën a rafet suuf nitu yàlla ne noonu lay mel lu waay jël rek xëpp ko waaye moom lu rafet rek ak lu sell rek mooy feeñ ci moom boo gësoon biiram itam la gën a rafet gën a yéemu rek ab taar ngay gis yàqa uhaa dana ko dëgg alkarimu aji tedd ja wala imu ak aji soxor ja wal barru ak aji baax wala xaas yi ak aji mooy wa tastadiimu te muy def dégg mbaa nga ne te muy sax waaye benn la bi mu ne nitu yàlla day mel ne suuf si dane suuf si moom gis nga ne ñëppay tong ci kawam ñëpp koy dëgg di dem ku baax ak ku bon ku tekki ak ku tekkiwut ñëpp rek dañu aw ci kawam te du wax accam kayamaay du wax eskay ka baax mbaa dara day def patt rek ne dégg moom suuf si nitu yàlla itam noonu lay mel day xajoo lépp xam ne lépp lépp kenn mag jëfam rek la yàlla rek moo fi nekk ak jëfam moom noonu rek la koy gisee nitu yàlla moom day jàpp ne kenn fi nekk ak jëfam rek jërul di wañu muy gudd yàllaa fi nekk lu bokkut ak moom rek jëfama waka saxaa bi ak niki niir ya waka qatril maa yi ak niki tawub ndox ma fi zilli ca ker ga wa saq yi ak suuxat ga bi la tis naayin ci lu setee nit gu yàlla ni asamaan si mel ak xiin yéeg taw yi bàyyi ko ci asamaan nga xam ne asamaan si fépp la tiim xiin wéeg taw bi itam fu ne lay àgg nitug yàlla noonu lay mel ci njariñam ak yërmaande ja yàlla jaare la ca moom du am xejj ak seen ci day sotti fee njariñam bàyyi fee déedéet fu ko yàlla jëmale rek mu jëm fa fu njariñam àggul rek yàllaa ko fa àggaliwut yàlla nag mooy jëfe ci coobareem ndax xiin yi ci asamaan seeg taw bi ci bàyyi ko taxul béréb yépp yemoo ca dana am béréb yu teggeeyu am béréb yu ndox ma bare bari bay yàq loolu lépp ci coobare yàlla nitu yàlla nag njariñam noonu lay mel day matale fenn fu ne ci kaw rek na yàlla bëggee ak na yàlla dogale ndax yàlla leen def ñoom nit ñu baax ñu ñuy bunti yërmande yàlla wa man yakun ku nekk kazaaka naka noonee fa huwa moom soofiyun soofiyu la maanaam nitu yàlla ku mat la ku wér la awlaa wala nekkul di mel noonee tazu da'wa kon boroomu woote rek la xalal maaroofi ca la ñu xam ni mu waxe nitu yàlla ku ni mel nee na nitu yàlla dëgg-dëgg la koo xam ne melul noonu nag da koy woote rek waaye ca dëgg-dëgg doonu ko xunaa fii intaha la jeexe muqaddamul kitaabi njalbeenu téere bi fal nan sarif nanu walbatiku li awwalil abwaa bi jëm ci aji jëkki bunt yi daa waxoon ne téere bi da ngay njëkk a gis muqaddamatun ba mu jeex nag nga door a tàmbalee gis ñetti bunt bu jëkk bu ñaareel bu ñetteel mu ne kon nag muqaddamatu bi moom fii la yam mu ngi jëm nag kon ci bunt bi nga xam ne mooy njëkk ci téere bi albaabu lii mooy bunt bi al awalu bi aji jëkk fil xalqi ci mbindeef alxalqu mooy lépp lu bokkut ak yàlla day leeral ci buntu njëkk bi ne ku dëgmal yàlla di sàkku ngërëmam bu mu geesu dara lu bokkut ak yàlla ndax lu bokkut ak yàlla rek mbindeef la te bu ko geesoo rek geesu bu aay geesu ga mën naa nekk ab ñag buy dox digganteem ak boroomam yaalam xamal waqaanaa yàlla nanu fegal allahu yàlla kulla mahlagin gépp alkande waqaa danaa tem womat nu turan boole sunu li xayril maslaki jëm ci ngën ji ab soobukaay mbaa nga ne jëm ci ngën ji aw yoon xamal ne ànnal tifaata aabidin naka geestuk aji jaamu lil xalqi jëm ci mbindeef yi yax jubu dana yiir bay na foo digganteem wa baynal xaqi ak diggante yàlla gannaaw bu ñaanee yàlla boole nu musal ci lépp luy xeetu alkande te may nu womat nu teg nu ci yoon wa gën ci yoon yi jëm ca moom mi ngi lay yëgal ne kat ki jóg ne moom ci yàlla la jëm na ko wóor ne bu geesoo lu bokkut ak yàlla loolee mu geesu day daal doon ab ñàkk digganteem ak boroomam geesu mbindeef nag mooy su dee doomi aadama yi su bëggee seenu tagg rek mbaa mu ragal seenu xas mbaa am lu mu bëgg te defe ne ñoom ñoo ko koy taxa am mbaa am lu mu ragal te defe ne mën nañ ko caa musal kon su boobaa geesu na doomi aadama yi bokkut ak xam ne yàlla bind doomi aadama yi ci kaw suuf ñuy dimbalante te it li yàlla defal ab jaamam li ci ëpp da koy jaare ci moroomam jaamam su jëflanteeg jaam ñi ci kaw rek lépp yàlla nga xam ne lu muy wut bu ko wutee ci moroomam jaamam itam su amut xam ne yàlla su amee xam ne yàlla su amee sant yàlla sant itam mbindeef mu ko jaarale ci moom su amut ci xam ne yàlla du xarab mbindeef moomee te xam ne rek yàlla su boobaa boobu geesu moom du geesu bu aay waaye nag su bëggee taggu doomi aadama yi mbaamu ragal seenu xas mbaamu ëppale yaakaar ci ñoom ba defe ne mën nañ koo may mën nañ koo xañ mbaa mën nañ koo lor mbaa mën nañ koo jariñ mel ne kon fàtte na yàlla su boobaa kon geesu na lu bokkut ak yàlla loolu nag kon day daal di nekk ab ñàkk digganteem ak yàlla wa minhu bokk na ci mbindeef maa la nga xam ne yahwa dana ko sopp bokk na ci li gën a mën a nekk ab ñàkk digganteem ak boroomam alhawa alhawa ñi koy firee bànneex alhawa mooy la bakkan bi bëgg jeng jëm ca nga xam ne loolee mu bëgg moom bakkan doonte alkandeem ak toskareem ma nga ca it xamu ca loola moom bakkan la mu bëgg rek la xam de sax bakkan mën naa dem ba defaroo defaru ba nga xam ne du soppati lu may li yàlla ak yonante bi sopp waaye li fekk muy àgg foofu nag moom mat nay seetlu bu baax a baax lu mu jàng jëm ca nga seet ba xam lu yàlla yonante bi gërëm la nga fekk ko ca lépp lu mu bëgg te du loola nga gaaw koo walbati wa shaytaanun ak saytaane rajimun ku di ko ñu jam ku ñu jam mooy ku yàlla dàq ci yërmandeem fal yaasi nay mooy kullan kenn ku ne mooy kullan képp min huma ci ñoom ñaar fa yastaqima ba muy jub boo weesoo alhawa bànneex teg ci ashaytaan noonoo gi seytaane noonu doomi aadama moom tey noonoo gu yàgg lool ndax ma nga dalee ci digganteem ak seen maam muy aadama ba ko yàlla su jóotloo ci aadama mu bañ yàlla jaare ca alak ko dig ko sawara mu daldi waat ne ñépp daañu mel ne moom dem ca waaw foofee la noonoo ga tàmbale woon kon nag seytaane bokk na ci noonu doomi aadama yi gën a bari lor kon ab julit war nay jéem a bañ a topp bànneexam di jéem itam bañ a topp seytaane ci genn wet wajaxal defal xaqalaka sam xel xaa idal hawa muy aji wommat bànneex ba wala taxkis te bul safaane fa tax wi ba ngay làq xadabal mawla merum buur bi xalaa kawe na fal muminu aji gëm ja ëllësi mooy ka nga xam ne yakoonu dana nekk dal inqaadi di boroom ak womatu ilaa mawlaahu jëm ci boroomam laa hawaahu du caageenu bànneexam nu xoolaat baatub dal inqaadi boobu daa mel daa bàyyi ko ci in qaada in qiyaadan teewul nag mool yépp ni lañ ko indee tuubaa texe li man ñeel na koo xam ne yaquuduhu dana ko mat xijaahu xelam ma li rida mawlaahu jëm ci ngërëmal boroomam ba duuna hawaahu ci lu dul bànneexam ba dane doomi aadama nag yàlla baaxe na ko defal ko xel moo xam ne su fekkee ne toppul bànneexam ba xel ma yàqu xel mi fu mu toll dana koy wommat di ko wan ne ko awal fee bul aw fee lee moo lay jëriñ lee moo lay lor mu nekkoon nag da ngay fexe ba jiital xel mi bànneex ba topp ca xel ma xel ma jiitu da nga moytoo safaane loolu nag jiital sa bànneex xel ma topp ca gannaaw bànneex ba ndax wala tattabihil hawa fa yudillaka an sabilillah wa man adallu mimman ittabaha hawaahu bi xayri hudam min allah bànneex moom ku ko topp rek mu dal lay réeral ba nga sànku wàcc yoonu yàlla kon nag jiitalal xel mi bànneex topp ca nga womatu nag jëm ci ngërëmal sa boroom moo tax mu ne ki gëm yàlla dëgg-dëgg daal day womatu jëm ci ngërëmal boroomam waaye du bàyyi bànneexam rekk mu di ko wommat ba di ko wàcce yoonu yàlla kon nag nee ka texe te texe dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne xelam da koy wommat di ko awale ci lu koy may ngërëm waaye du topp bànneex mukk ba mu koy sànk amar rajiimu ndaal ka ñu jam fa naxuudu dana nu muslu bi raxiimi ci aj yërëme ji min fu ci moom wa min kulli muxaalifin ak ci jépp aji jiyoog ndigal mu lii min koy aji dikke lu mu koy yedde li annahoo ngir naka moom muxaaribun aji xareente la maanaam kuy bëri la ak doomi aadama fii kulli xiinin ci bépp jamono mooy ci bépp waxtu wala yu saalixu te du yéwénoonte wala huwa te déet moom yal yinu muy nooy seytaane moom nee na yal nañ ci yàlla musal musal nu ci képp kuy xëtt ndigal ndax day noonu doomi aadama boo xam ne noonoo gi daa yàgg ci cosaan ndax ci seen maam aadama